indil de. Hmm. waaw bisimilah. ay jigéen ñu la ko jox. jigéen ok. naa la bu baax ziar la. di nuyu képp kamtan rek mi ngi ñuy seetaan eh, di ñëwaat rek eh, Omar Rew di nuyu axlu béti rasulullah Mamadou Maxtaar laa jiite ko tey ji nag di Chaban di ñaan lépp luñ fa ñaan rek eh, waa kër maam Ibrahima Seyni yàlla na ko yàlla nangu soxna Ayta Seen laa ñu koy nuyu di nuyu ñëpp di la ziar Omar di la bàyyi nga nuyoo jigéen ñu ne diplôme de reconnaissance et de guerrière waaw décerné à Ndeye Faye ndeysaan porte Ndeye Faye Cambérène tout Cambérène te remercie pour avoir résisté devant un pata. Merci. Et tu n'as pas fui, tu mm -mm. que tu es une lionne. Mm-hmm. Et réclame, la population de Cambérène réclame -hmm. un combat définitif sans intermédiaire de Omar Rew face à face ñoom ñu ngi sa ginnaaw ci diine ak ci baatin. dégguma de face à face lan nga wax nga ne. <laughs> face à face daal ndax. kii face à face à face yéen ñaar. ok sans. face à face laa wax yéen ñaar ngeen ñun ñaan ñii nii. Ah, ok sans Omar rek quoi. waaw man duma ci nekk daal pour mu jeex ñu ne semaine bii ngeen tëj ko wax ji jeex boo leen ñëwee altine ngeen nekk si li ngeen wara a nekk bu fekkee dina am ku ñëw. <laughs> xam naa seen xeex moom. ah man de dinaa ñëw. waaw ah, kon baax na kon. incha allah xaw ma xaw tooy bam si kan la jógee. mais man moom damay ñëw. moom mun na nuyoo man loolu laa kon yaay Fall ma lay nuyu. di la ziar di la wax tey jii ëllëg sëñ Muntaxa bi dafa rafet xam nga sëñ Muntaxa dama koo bëgg bëgg bépp kilifa diine kilifa euh, yi nekk si dëkk bi yëpp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 waaw maa ngi nuyu ñëpp rek <laughs> maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp fépp fu soppe nekk rek ak fans maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu nag euh, waa Daaru Musi yëpp di wax nag gis nga ku gis suñu laxasaay gi tey xam ne ñu ngi waaj a màggal daaru gi rek di nuyuwaat borom daaru bu baax di ko ziar di ko jox yéeguwaayam bu kawee kawee kawee nuyu nañ ñëpp ñëpp ñëpp di ziar ñëpp di ñaar ci réew mi jàmm rek yàlla na jàmm yàgg amin amin yaa rabbi euh, Omar xam nga comme sa réewal gi moom dafa ëpp mais xam nga dama dama lay jox cadeau parce que sa anniversaire bi yàggul waa kër may sa boutique ñoo ma habillé tey brodé bii ma sol. Ah. waa kër madame abi ak ah, ñoo la ko jox yow. Ah, ñoo ko may. waaw la ko may ñoo ma habillé tey tamit ak démb. Euh, madame Seck ak euh, monsieur Seck. léegi nag yéen ma ko. waaw dama koy may seen jëkkër. man góor laa daal. lii dama koy jël may ko seen jëkkër yi. ñu séddoo ko ñaar waaye. Mm. kenn rek moo koy yóbbu këram. man sama sama sama daal ak aawolo bu ñaar fukki junni yii ma moom laa bëgg teg ci lii ngeen jàkkaarloo waxante lu ñaaw. ngeen fu gën a ñaawee ci morom loo xam sa morom ci lu ñaaw ci lu biir ak ci biti ngeen génn ko loo ko xamal balaa mu doon sëy sax wax ko. loo ko xamal ci biir sëyam wax ko yow tamit ilaa noonu ngeen defante wéerante waxante lu ñaaw ak lu réew dëgg la ma tëral leen dëgg la ay ci yéen lay xaar Omar ma ne bi lan nga ci xam laa lay laaj man mooy ngeen ñëw jàkkaarloo parrainage bi am tane temps mi ngi lëmbee dëkk bi ñëpp di wax parenage <laughs> politicien man loolu laay laaj ana loo ca xam. ana Papa Kumba Naar kii moo bëgg jëkkëram bëgg mu sañse moo tax du daw du dellu ginnaaw bu ma dee góor moom laa ko war a jox ndaanaan nii lay mel kii du tappet kii jigéen ak jeeg du ko yeb amul noo munti toll. kenn du ko indil enveloppe bi ma jox ko te dara ñëwagul gaawal okkom maa la jox lii. enveloppe moom mën a goo ko joxe te te langue gi tasagul yow man dama laa posé question tontoogoo léegi enveloppe looy joxe enveloppe bi looy faralaate. affaire seytaane yi la dama koy motiver. Ah, rek koy motiver bu motivation di am man nga war a motiver. ndax. Ah. <laughs> Ah. jigéen gu mën kenn du ko yëpp kii Macky Sall ci boppam moo ko bëggal boppam kii mooy Baye Fallou Macky Sall ku wax Macky Sall lu ñaaw mu dal sa kaw ku wax Macky lu ñaaw mu dal sa kaw Marème Faye mu dal sa kaw ku gaaruwaale mu dal sa kaw. te yow promoteur seytaane nga. parce que booy tëgg da nga a yamale ñun ñaan ñëpp nga tolloolee. combat combat mais salaamaaleykum ak salaam nga ut koy faral. sa jëkkër bii bu ko solee kenn bi nga xool. seytaane bi ku nopp sa jëkkër daal sa fii ñëpp nopp seen jëkkër neex. yaa fa yaa am man daal prix dip lay xaar ak ku wax Macky Sall lu ñaaw. ma defal ko bagaas prix dip ku wax Macky Sall lu mu ko war wax ma defal ko bagage loolu rek lay xaar man. yow Cambérène ñi fa nekk ci ay waaliw ak la jeunesse de Cambérène entraînement géej gi nu leen yombee. ndey sa sa moromu jigéen di def nii di toroxal ci kanamu lii waa Cambérène tey génn nañ ci yow ndey ndey nii nga taxawee tey waa Cambérène hooy ali foofu gouverneur doomu Cambérène kenn du ko yëngal mën a géej bu ne tekk bàyyi ko doomu Cambérène kenn du ko yëngal war ko war ko war ko war ko xam nga ne bilaay jaan tuuti na waaye dagar gaan ci biir jigéen jàmbaar lay doon Cambérène amul taxaw ay sa taxawal bu eh, daw dama ne waa Cambérène duñu daw mun nañ laa war waaye duñu daw ayca waaw kay loo yor yor yàgg ngaa yéeg gaal gaal gu ndaw nga yor tàcc ko jàkkaarloog moom ayca loo mën def ko yow yaay pata ponkal bi ayca daanaan ayca commencé leen. doole balaa neex kay ki ñu war a xeexal taxaw. loolu tapet bi nga doon yow dëkkoo Cambérène de. ki ñu war a xeexal dafa war a taxaw kii daal yow yaay daanaan. yàlla. kaay mais taxaw taxaw da xam nga dama lay wax. Eh! Eh, eh! waa ndey mbaa doo tam yow kay. rëy ko mu dee.